li ngeen di def nii mooy exemple de citoyen mbir mi nit du alal mooy def nit sa liggéey boo ko jaamoo jox ko ak xam gis ci sutura gis ci teranga man exemple laa ci bi may dugg di jàngale instituteur adjoint niveau BFM quatre-vingt-sept mille cinq cents francs de salaire mais 87 500 yooyu samay élèves a ngi fii samay élèves màgg nañu xam nañ ni man j'étais un excellent enseignant parce que dama ko doon jox ak xam nawetaan fii nawetaan fii ci région bi lu fi nit mën a jommal rek jommal naa ko nit ci région bi ak ci réew mi ci région bi ak ci réew mi parce que dama ko doon jox ak xam ministre Aliou Sow moo tax lu nit nit lu muy def na ëllëg ministre Aliou Sow ñu def ko ministre en 2002 ma nekk fii chargé de cours au CEM Babacar Koba Ndaw j'étais le moins gradé j'étais le moins gradé de l'école le moins gradé il y avait des professeurs d'enseignement secondaire et le moins gradé c'était l'instituteur adjoint que j'étais ministre Aliou Sow a fait de moi son attaché de cabinet nous sommes allés dans le même cabinet directeur de cabinet yi ñii ngi am maîtrise ñii ngi am université de Washington ñëpp et le ministre Aliou Sow demandait à chacun d'écrire des discours ou bien des textes et préparer ñu indi ko quand j'ai écrit quand j'ai écrit et d'autres fonctionnaires de la hiérarchie a un écrivaient Aliou Sow m'a appelé dans son bureau mu ma gars yi fi nekk yëpp yaa ma il faut il faut pas t'arrêter à ce niveau il faut continuer acte attention nga dem defi ENAM nga continuer parce que yow tu es meilleur que tous ces gens là et en son temps après je suis allé à Claire Afrique je suis allé à à la librairie 80 et j'achetais chaque mois mais livres et je me préparais au grand concours tous les concours bi ma def j'ai été major à l'entrée ah moi j'ai du mérite damay parce que Sénégal du ñu xam nit ñi fu ñu jógee je sais d'où je viens c'est pourquoi je sais où je vais